dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba di gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mm-hmm. di sant di gërëm mm-hmm. sama wasila sama Serigne Serigne Mour Baara mm-hmm. ibnu Serigne Abdou Khadim ibnu Serigne Baara ibnu Khadimu Rasul ko ñaanal mu yàgg te wér di nuyu nag mbokki jullit yëpp mbokki taalu bi yëpp rawatina nag ki nga xam ne mooy Ibrahima Guèye indi ah, dalal bii moo dal ci rajo bu tedd bi di Baol Média di nuyu kilifa gi nga xam ne moo ko jiite nuyoo boo xam ne am na tàmbali waaye amul yam maa ngi nuyu ñëpp du ko tàmbali ci moom ba ci ki nga xam ne mooy di gën di tu tàng di leen ñaan di sàkk ci ñaan di nuyu nag alu gawar bépp nag bépp koy gawar rek boobu kenn rawati nag fi mu féetee ndax wolof daan wax naan poqtaan ci gën ak baar waaye mba garaw ñi ma gën a féeteel nag ñuy lu sareet yi nga xam ne ñooy jóge marché di dem Kër Sëñaan ak Mbàkke Baari maa ngi nuyu ki ci mag ba ki ci gën di xale di ko ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom ñaan di ñaanal it xalifa général de euh, Mouride Sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla gën ko fi yàggal te wéral ko noo ngi nuyu nuyu ñëpp daal bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn bàyyiwuñ fenn noo ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf euh, sëñ Baye Sarr si mu mel ni yow responsabilité nga ci ligne boobu sareet yooyu di daw. Hmm. léegi li ma lay njëkk mooy ku bëgg def transport sareet moom. Hmm. dangay am ay kayit wala dangay dem jënd saw fas rek dikk. ak dikk adré wu wala euh, da dikk rek daw maanaam ne maanaam li ma ci bëgg a jublu rek mooy est-ce que yéen am ngeen reconnaissance pour daw ci dëkk bi walla déet. waaw jërëjëf kontaan naa ci laaj boobu ndax fi nga ma ko laaj fi laa ko bëggee sareet de bu jëkk demoon na ne boo yoree saree rek bu la neexee dawal ci biir dëkk bi waaye nag jamono day dox. di dox di dox ba am loo xam ne luwaa boo xam ne nag xañ na daa tege ci kaw sareet yi luwaa bi mooy dem nañ ba ne dañuy wutal dëkk bi léegi ay gaaraas ndax garage yi boo ko xoolee dafa baax ndax bu garage amul woon marché bi ngay buuxan buuxante may buuxante client bi kaay client bi kaay mën naa ndir xeexa wala réeroo wala bagage ci client bi xëccoo bi comme yaa ma gën a xam daal hmm. ñu wëlbatikuwaat léegi nag def ko ay garage garage yooyu nag demewul ne da ngay dikk rek di fi daw garage bu nekk ak la fa xew ndax ku nekk ak na ngay toje sa bopp jaar hmm, noonu sunu garage ni nu koy doxale ñun mooy ku dikk danga nga war a abonné la fay abone def sart ya garage yi woote nga di ko def ndax boo ne damay woote garage rek dajale fa aw mbooloo te muti sart paccaxoo ko buñ ko defee cëmbal deex dex gi dana nëq doo naan doo mën a sangu ñu wëlbatikuwaat léegi def ko ay ay table yoo xam ne nii ay numéro yoo xam ne ci nga war a daw boo dikkee ne damay bind ñu bind la am na sar ñuy teg ci garage bi nag yoo xam ne nii moo doxal garage bi ndax garage li ma la rek bu mu sart moom day indi ay paccaxoo wala ay xuloo xeex waaye am na loo xam ne nii dañ ko teg ci garage bi ku abonné nangam ngay joxe waaw dem na ba ci nag yeneen yu ne ci biir yoo xam ne xañ na buñ àggoon ba ci biir ah. naa la ko gën a leeral waaye daal li am bari daal mooy gaaras daal moom hmm. moom léegi moom la ñuy doxal ci dëkk bii nga xam ne nii moom moo wax dëgg mu di jàmm ji bu ko defee kenn du mën a paccaxoo kenn du xuloo kenn du xee kenn du def dara boo dikkee woo koog sor bi bind ma ñu bind la nga toog ba yeb jot ñu yeb la ngay dem bu la neexit bind yooru boo dellusiwaatee boo ko fekkut it nga binduwaat moom daal wax dëgg yàlla table yi daal rang bi daal moom a na jàmm ndax xam nga ne boo xoolee garage oto yi sax bu ñu demoon ba nga xam nii rang bi jeex na six heures pàccaxoo ba xuloo baa xeex baa ñoddi yoonte ba ci nga xamee ne kon rang baax na loolu moo waral ñun di rang ci garage yi jërëjëf sëñ Sa kon 88 628 19 05 ku bëgg ànd ak ñun wala 88 628 19 18 81 eh, 02 ñu ànd ak Baye Sarr Sey mooy chef de garage seret yi nga xam ne ñoo jëm kër Sëñ ñaan ak Mbàkke Bari li nga wax leer na kon daal li ma bëgg xam mooy képp koo xam ne daal yor nga sareet am na foo ko teg foo fu wér foo xam ni mooy tax nga man fee daw kon léegi bu nit ki dikkee bëgg am sareet faw day gisee ak chef de garage bi léegi am lu mu joxe pour ñu jox ñu jox kër wala waaw loolu day am ndax li lay boole ci mbir mi ku ne xam na ko. Mm-hmm. boo dikkee ci ab garage kay bëgg a doxal même ab dëkk sax boo bëggee doxal hmm. la dëkk bay doxal da ngay laaj la dëkk bay doxal nga def ko hmm. léegi boo dikkee boo nee garage bi hmm. ñaata lañ ci abone ñu ne la nangam lañ ci abone nga wëlbatikuwaat joxe sa xaalis abonné bokk bu ko defee mel ne nit ña ndax loolu garage bi dafa yombalal sax lu mel ne clients yit ndax wax dëgg yàlla comme li ma la waxoon rek garage moom boo mënul pëcc ko de am rek ñoddente yeneen am waaye boo diggee ci garage bi moom bëgg a bokk ci garage bi am na luwaay yoo xam ne boo diggee ci garage bi dañ lay wax ne la bi nangam ngay abonné am na it yeneen saat yu ne ci biir yoo xam ne demee ne kii ku nekk ak na ngay defee sa garage ndax man de sama garage man dama fay dem boo dikkee da ngay abonné boo dikkee ma ne la garage bi nag moom lii fi am bëgguma xeex ku xeex da fay nangam mbaa aj la ku maroo daas it xam nga maroo daas it fay nangam hmm. loolu it dañ koy def kon bu nu ko defee xam nga ne moom boori kii ci gaaral moom ñu ne xeex amu fa rek jàmm la leen tàmbali am te morooraat it mën naa di leneen kon boo kii ci gaaral bi daal li war mooy da ngay def li waa gaaral bi def li ñu lay laaj nga joxe ko ñu la sart yi nii la fii ngay tàmbalee fii ngay yem amul xuloo client amul dara amul xeex loolu daal moom laay doxale sama gaaral ma jërëjëf euh, sëñ Baye Sarr kon 88 628 19 05 88 628 81 08 léegi dama gis ñaare boo saret euh, bi yabee bàggal am na lu muy joxe ko sóor bi léegi loolu nu ngeen ko de mairie la jëm wala ci da ngeen koy defaree garage bi wala ko sóor bi nga xam ne mooy bind moo ko moom lañ ko jox wala la. waaw jërëjëf sëñ Ibrahima Guèye. Abdoulaye Abdoulaye Guèye. Mm. sëñ Abdoulaye. Mm. Alioullah. Ah, maanaam lii nga xam ne nii moom la garas bi di laaj. kook mm-hmm. bi. Mm-hmm. man na may doxee sama garage. Mm-hmm. mooy ku yeb. da joxe nangam. ku yeb rek boo dikkee da ngay joxe nangam yeb boo yeb daal da ngay joxe nangam. loolee nag nun ci la ñuy jox kook bi la yelloog moom. li des it ci la ñuy denc pour en garage bi. pour ëllëg woo xam ne am nga problème nu man la cee jàppale ak problème bu mu andi rek am man di am rek nu man la cee jàppale ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ci jàppale bu baax bokkut ak nag li nga xam ni moom ngay fay commune bi commune moom li nga moom yaag moo commune bi la bu dikkee moo ñi garage bi la lim leen di fayu ñoo koy diggaale waaye ñun daal li nga xam ne ni moom la ñuy dajale kook sor bi moom danañ ko ci dindil li ci def nu denc ko def ko sunu kees ku ci am loo xam ne war nañ laa jàppale ñu jàppale la loolu daal la ñuy doxale ñun. Hmm. suñu garage. kon daal loolu moom taxawun lay lay taxawee maanaam dimbalante. waaw dimbalante. waaye fi ne bu dee wàllu maire bi it euh, yéen ko sori yéen dañuy ñëw dagg euh, ngeen daggal séeréer yëpp wala ku ne kenn ku ne dangay dem ca maire bi nga rek sa sa kii bopp wala nu ngeen koy organiser noonu. waaw maire bi ñooy doxal si bopp ñëw fa yebal fa ndaw man sama garage laa xam man sama gara garage. Ah, maire mooy yebal ndaw. Hmm. ndax. garage yoo wax nañ ne defe na quatre-vingt-seize garage xaw ma jàppatuma daal lu mu doon waaye man sama garage daal laa xam hmm, hmm, hmm. ndax sa ndax moom bi mu daal ci guy gi rek la xam ci guy gi dëgg la <laughs> waaw man daal sama garage man la ñuy doxe mooy buñ fi yeblee ndaw li nga xam ne moom la fi euh, mairie bi yebal bu dikkee war a dagg mille cinq cent par weer dana dagg mille mille cinq cent yi pour weer wax dëgg yàlla macha allah. sama garage it dëgg yàlla danañ leen obligé ñu dagg jàmmu ne beyi maire bi bu ko defee ndaw lam fa yebal bu dikkee ñu daggal ko weer wu jot ñu wax ko mille cinq cent mu dem jàmmu ne beyi mm. loola daal lan seq ak maire bi mm. wax dëgg yàlla ci digg fay gi moom macha allah yi nag wax dëgg gaara moom wax dëgg yàlla ñoo ko koy fay mm. man nag sama waa sama gaara daal laa xam yàpp naa daal yàpp yëpp daal bu meloon ne rees ah, simiñ mën naa bañ a taq dee dëgg la alhamdulilah 88 628 19 05 88 91 minutes ku bëgg ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi dalal bàyyi Sarr Sey muy doon chef de garage su bi nga sareet yi nga xam ñooy daw diggante marché ocas ak euh, waalo ga ba keroog ak àgg Mbacke Bari ku bëgg ànd ak ñun rek mën ngaa jaar ci wet googu. Mm-hmm. Euh, ba bu ko defee ba tey yéen a ngi bàyyi xel ci ndax léeg-léeg da ngay gis gone gu ndaw goo xam ni. dafa mm-hmm. yor sareet. Mm-hmm. léeg-léeg day wax daanaka mu waxe ko noo xam ni moromam mbaayam la te yaakaar naa. loolu it xanaa war ngeen ci bàyyi xel ci xale yi nga xam ne moom la ñuy jox sareet yi ndax koo xam ci jàngale toll wax dëgg yàlla jàngut nga jox ko sareet léeg-léeg muy def jikko joo euh, jikko joo xam ne doy na war daal te euh, li ñuy wax rek nit ku ci nekk moom euh, sabiyar moom nga war a doxee ci mbooloo ndax ku liggéey mbooloo da nga war a am nooy doxee loolu yéen lu lu lu ngeen lu ngeen ciy wax wala da ngeen ci am ay kii. waaw damay jégalu ndax dama war a leeral ne maag Cheikh Ndiaye kooku suur bi ñoo waroon ànd. waaye nag jaam day fexe yàlla yi dogal. Mm, waañ nañ ba moo bokkoon julli tisbaar. Mm. waxtaanoon waaye nag am ndogo ko diggal. dëgg la dëgg mu mel ne feebar. Mm. ndax xam nga feebar ci doomu aadama. day mel ne pënu rek pënu mën naa fees ba àgg daal. mu waaw mu peer. waaw ndaw yooyu de li nga ci wax mooy. wax dëgg yàlla ku tedd ki sëñ Muntaxa yàlla na fi àgg te waxoon na ko. loolu luñ ci teg lu moom li mu wax rek la ñëpp war a jëfee. ndax moom fa muy gisee kenn gisul ko. Mbacke Balla ay Sëwuri. yal na fi yàgg te wér. amiin amiin moom nee na woon ndaw yi. nañ leen dugal ci daara yi mat a dugg daara. nañ jàng ci daara. bu ñu ci da jàng ma. ku ci dem ba àgg ci. war jàng métier. ñu dugal la ci métier. te ñu bàyyi sareet yi. loolu mu wax dëgg sëñ mun taxawaan na ko. amaa nag leen li nga xam ne ñoom ñoo ne sareet yi xale yi. xañ na ah gone yi nga xam ne ñoo ne sare yi moom daal gone yi sare moom li am bari moom moom moom man daal xam naa ne sëñ bi daal wax na loolu moom te maire bi jógoon nañ ci ne ñoom it dañ fee bëgg a jële xale yi nee na ñooy ndax ñu liggéey yi leneen te bàyyi sareet yi ndax xam nga xale ndeysaan lu mu dañuy wax naan yàpp barmool lu mu duuf duuf ratax xale yit lu mu jàmbaare jàmbaare xam nga fas mm. amutum xel mm. bu ko xale bu ndaw yoree amatum xel. Hmm. xam nga ñaar ñàkkum xel moom nga ñu dox moom. <laughs> ah. Hmm, hmm, ñu wax moom ku li man ñàkk gu daay man raja. <laughs> dëgg la dëgg léegi nag loolu nag moom sëñ bi waxoon ci mais nag. ba tey dëkk bi daal moom ñu ngi ci loolu moom daanaka moom. wàllu mairie bi ñoo ko man a doxal. ñun chef de garage yi moom. suñu nu xale bu ndaw ba ndib sareetam. waajuram bind ko. nu dikk ne ko yow xale bi duñ la yëpp sa baay la nii yëpp. ñun daal xal koo xam ne jël nga sa numéro. di fay li la war ci mairie bi. di fay li la war ci euh, coxeur bi ak garage bi. boo fa yebalee sa doom. wax dëgg yàlla nun mënuñu ko ne doo fa yeb. dëgg la dëgg la déedéet nun nun loolu sañunu ko it. Mm, wax dëgg yàlla sañunu ko. Mm, loolu daal yëfi mairie la gannaaw sëñ bi joxoon na ci ndige. Mm. yëfi mairie la nun loolu moom suñu yoon néew ci. nun xale bu ndaw bu dikk. sa baay la it wax dëgg yàlla ndax. xamuñu sa baay ma la yebale lu tax. Ah. mu yebale ndax xañ na daa jagadi. yebal la bëgg nga dawal ko dépasse wala yët ah, daa am ngànt wala dara nun daal lu ci man dem daal kooku du suñ problème boobu mm-hmm. nun daal nun wax dëgg kooku nun suñ yónniwu ci nun daal ku egg si daal te doxali gaara bi doxal mm-hmm. am na droit ci dagg dagg ah, kii bind la nga yeb ci gaara bi liggéey ko mag ñi fi ne mm-hmm. leneen la ca ne nag yar ba ci ne nag nun nag mënunoo yar kenn moom dëgg la dëgg ah, ku yàlla dogal nag xaj na yaree du ne ci yewit kooku na wax dëgg yàlla ñun suñu yoon néew ci <laughs> ndax wax dëgg yàlla du suñu rôle daal ñun waaw ko da xam ne daal na ko yàlla bind wala na mel ci këram mm-hmm. bu ko waajuram munta yar mm-hmm. ah noonu wax dëgg yàlla munu ca dara moom nun daal li am bari mooy mm-hmm. li nu warat ñoom daal mooy ku egg si daal ne sama baay moo ma jox sareet bi damay bind dañ lay bind am maa nag boo dajee waa mairie bi ñoo dañuy aaye gone yi nangam ah ñoo ñu daal looloo nu waaw jërëjëf di ngeen def léeg-léeg ngeen woo xele yi ak yéen waa garage ngeen toog bokk waxtaan xool ne lii kot moom mooy ay ci garage bi. kon nag nañ ko toog waxtaan ndax damay am benn bis suma wàcc dugg bi leen sareet. Hmm. sareet bi sax yàlla dogal na feesut. Hmm. maanaam xele bi xam nga sareet bu feesut moom day naqari. Hmm. waaw bu ko dee ak xam nga Touba. seen yoon yi daa xaw a naqari. Mm. muy caw fas yi fas yi na gëjëx gëjëx ma ne ko. defal ndànk fas yi lii ah, ah, ah, am na bakkante bu doon moomu na wala mu am xel mi nga yor doo ko takk waaye dafa mel bi ma ko waxee. Mm. daa gën a làbbali fas yi fas yi na mm. nga xam ne keroog damaa wàcc te ak mu fi ma jëm. est-ce que loolu di ngeen def léeg-léeg ngeen woo xele xam xamal leen ni leen kot nit ñee ñu fi bàyyi ñoo fi bàyyi nit ñi te lii ñuy def mënut a ñàkk ndax buñ tey bu ne woon sareet dawut kon nit ñi jaaxle ndax rima yaa ngi fi waaye mun mun noo jeexal nit ñi euh, bu la balaa yaa ngi fi kaar yaa ngi fi lépp ngi fi waaye fi ne tey boo xëyoon di dem mm. da ngay am problème euh, jafe-jafe euh, transport mm. te ginnaaw yàlla wala asim da srede li ñuy liggéey ci Touba mm. moom gisuma ko liggéey ñoo mën a oto yi sax ndax fan mën a dem oto du fa dem kon est-ce que di ngeen def léeg-léeg ngeen woo woote réunion waxtaan gis li nga xam ne maanaam mooy ki yeen liggéey bi salteel liggéey bi ngeen ngeen waxtaan ci wala yu dem noonu ah waaw loolu day danañ ko danañ dajee di eh, eh, réunion xale wala nu taxaw ñoom ci gaar bi ku deful la la waree la lii nga dem maanaam waru la waaye nag oh, dañ ne anaatum muxtalifuuna waaw yàlla dafa bind téemalewut te it wax dëgg yàlla gone nga xam ne yàlla na toona ko xañ na loolu nga wax léegi ak ak yaree du ko ne ci moom xañ na waajuram munu ci dara yow mii dajeeg moom ci yéen mënoo ci dara da ngay naxtaan rek mënoo hmm. ci dara moom te ñëpp yemuñu hmm. ndax daanama wax naan hmm. ah, ah, maanaam bari Kawlax yëpp du mboose waaye nag boo fa yëpp woon bari Tuubaa day daal di nekk mboose <laughs> waaw xam nga ñu jubun ñi nag moom ñoo yàq ñu baax ñi waaye nag ñëpp dënguñu moom hmm. am na ñoo xam ne masha moom dañuy daw di yët seen i wajur waaye am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla nag moom waaw xañ na ju bëri daal na ni neexu seen i waajur nag donte xañ na ñoom ko def ñoom it neexu leen it mm. danañ ci ñoom nag mm. waaye na wax dëgg yàlla mm. ndaw di yàlla na tooloolu xañ na waajur mënu ci dara yow mi ci mbedd bi loo ko dara ndax boo ko laaloon mm-hmm. buur dal di dal ci sa kaw kon nag da nga koy daal di def moom daal ndaw la ci jub mm-hmm. maroy la ndaw la ci jubari ma romb la mm-hmm. sareet yooyu nag ni nga ci waxe nag sareet moom comme li nga ko waxe ndeysaan sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla yokki leeram man dañ fi amoon naqar booba ci sareet boobu metti woon na. Mhm. boo jamono gendarmerie rek a fi ne woon. xam ne léeg ñu dajeeg ñun daal wax dëgg yàlla. Ah, waaw li mhm. nu xaw a métti ay métti yu xaw a kii nii daal. Mhm. ñu dem ci sëñ Saliou bi ñu demee ci moom mu ne nag. nañ lam nu jëkk wax mooy nañu bàyyi sareet ñuy liggéey. ndax ñuy daan seen doole rek fi ne am na ñoo xam nii ndeysaan seen dépense tey tey seen dépense suba tey lañ koy xëyee. Mm-hmm. tey sareet wa wëlbati ko na sareet yàgg na fi. Mm-hmm. ndax ca uh, sunu. maam Adama mën nañ ne ca yonent sallallahu alayhi wa sallam bi fas fi dox. Mm-hmm. te it kër goo dem daanaka. fekk foofu fas fii mu ne bari na ñoo xam ne xeeb nañ fas. xeeb sareet. waaye dama leen wax mbaam na gàtt na waaye ci giir gi la. <laughs> dëgg la. <laughs> sareet moom dañu ko tullu waaye gis nga sareet moom. bari na ñoo xam ne ci dëkk bi li sareet di ci dëkk bi jëriñuñ ko ci dëkk te ñu xeeb sareet loolu nawlee wuñ sareet toppatoo wuñ sareet mm. te am maa tax ñoom si seen soxna say duggi mm-hmm. sareet a leen di yóbbu mm-hmm. am maa buñ demoon ci magasin bi mm-hmm. la jënd sareet a ko yóbbu borom magasin bi nag xañ na moom dafa néewal sareet wala mu xaw a xeeb sareet ba nga xam ne boo jege woon am magasin mu di la si sa kafiir bagage yi muy jënd fii sareet a koy jël dëgg la dëgg la ah bu nu waxtaanee rek bu nu yëgoo dund réeroo sareet nag dafa yàgg a moom ku ne xam na ko moom fas moom bari na ci kër yoo xam ne ba ci boo demoon ci daara yi fekk sareet yi mm-hmm. sareet comme li nga wax léegi am na ci gox yoo xam ne mm-hmm. ab rim du fa dem ñoom ñi am na ñoo ne oto bu rafet lañu ñu am xeeb sareet mm-hmm. ba teguñu sareet fenn am na foo xam ne boo leen fa bëggoon a jaarloo seen oto xalaatuñ faa jaar seen oto sareet doo nga fay jaar kon nañu xam ne mbaam gàtt na waaye ci gii gi la fas yi dañuy lekk nit ñi dañuy dund ci fas yi mm, mm. nañuy yërëm borom sareet yi mm, xañ bu buñ leen tegee ci yoon yi ñoome ñu tegee ci yoon kon jàmm rek ne béy waaye sareet yàgg na fi ndax damay wax ne sax boo xoolee ci mbóorum sareet boo dugg Touba sareet ngay jëkk a gis booy génn Touba sareet ngay mujj a gis mu mel ne làmp faal booy génn Touba làmp ngay mujj a booy dugg Touba làmp ngay jëkk a gis sareet booy génn Touba sareet ngay mujj a gis booy dugg sareet ngay jëkk a gis jërëjëf jërëjëf Baye Sarr Baye <laughs> Sarr sëy li nga wax dëgg la moom ku bëgg a nañu ne 88 628 19 05 88 628 81 08 ñu ngi ànd ak Baye saar sëy mooy chef de garage sareet euh, yi nga xam ñoo jëm kër si ñaan euh, jëm noonu kon ku bëgg a ànd ñun ci waxtaan wi rek man nga ànd ak ñoom moom lañ dalal ba tey ci waxtaan wi euh, Baye Sarr mm. comme ni ma ko waxee léegi rek dafa am loo xam ni waaye war nañ ci jàngat ndax mm. yéen wax dëgg yàlla fu waay munta dem. Mm. surtout nawet bi. Mm. yéen fa mën a dem. Mm. waaye dañuy jaax ni daal boo programme amee lu demee wala nawet di ñëw dañuy gis ni dañuy xëy xëy rek yokk paas yi te moom bu doon yokk 5 pour cent wala 10 pour cent waaye moom 100 pour cent la ñuy yokk. moom sareet yi waaw. fooy war a dem 100 francs ñu def 200. léeg-léeg sax ñu àgg foo xam ne xëy na ñu dugal ko ñaar yoon def ko 300 surtout maa magal Tuubaa. waaye nit ki a duggi. ba mu waree duggi léegi xëy marché xam nga dafay naqari. nga dem ba nga demee nga dugg ñëw si aw cent franc. nga ñëw ñu ne la ko deux cent la. te fi nga dëkk jegewut pour dox. boobaa yow ki nga xam ne yaay client bi nooy def. loolu it xam est-ce que da ngeen tey man dafa yomb lool ndax naan daal bu nee taw na tey. ñu ne ñu layoo ndox mi wala ñu ne euh, dund bi dafa seer ngooñ mi daal seer te man ba ngay jël cent franc di ko fayee ko. pepp nga daan jënd di jënd ngooñ. léegi nag la ngay lay sa borom sareet yu bari daal du ñëpp nag daal. waaye borom sareet yu bari. li ñu laytoo mooy ngooñ mi daa seer wala pem mi daa seer léegi nga xëy na ki war a duggi dem ba marché ni code cent franc yi naa ko desal pour ma dem paas yi nga dikk ñu la deux cent la boobaa loolu moom da ngeen ci manko tamit te sareet yëpp la nag garage yëpp foo dem ci manko xawma règlement bu la bu bees bu ngeen jël waaw hmm. loolu nag daa mel ne moom ah, sànkar la soo xam ne da nga koo xool ci pañab sareet rek <laughs> waaye bari na pañe yu mu moom yokku baat bi moom. sànkara doo xam ne nekkul ci pañe borom sareer rek. Mm. nekk na ci pañe ñi ci des ñëpp. Mm. ndax boo xoolee comme ni nga wax ak ay dëgg. Mm. moom dañu toog ba yàgg bu tawee rek ñu yokk paas yi. wax dëgg yàlla waaye boo xooloon ci ñeneen ñi nga xam ni doo tudd sax waaye transport bépp daal maanaam am na ñoo xam ne dañuy toll foo xam ne moom dañ ñoom ñëpp dañu yokk. xam ne ñuy nag yokk boobu nun boo gisee ñu yokk ko nu bàyyi leen ci. day ay jafe-jafe ndax tey jii fii ma xam ne moom laa jiite mooy euh, sareeti kër si ñaan yi. waaw fa ñuy jaar bu fekkee ne du noor. Hmm. bu ñu fayoon fukki dërëm sax wallaay baax na. Hmm. Ah, baax na waaye nag bu tawee nag lay teg ci moom. Hmm. ba taa ba mbedd mbedd tooy xëpp nag moom. danañ wiré wiré boo xam ne nii. la daa fayu cent franc benn fukki dërëm yéen ci teg. defe naa ne am na ñoo xam ne day. duñu ko duñu ko métti lu ndax fa ñu wiiree métti. waxuma la nag pem mu seer mi ak ngooñ mu seer bi ak leneen li ca kër ga ndax am na ñoo xam ni am na leen looy xaar ca kër ga waaye nag fa ñuy wiire ak fa ñuy jaari wax dëgg yàlla moom métti na métti koo xam ne nii wax dëgg yàlla am na koo xam ne fayu nañ la ko cent franc lañ la koy fayu tey ñu dee ko fayu càppantati maanaam fanweer wax dëgg yàlla boo xoolee fa ñuy kii doo ko kaas amaa nag moom xañ na nun bu du woon loolu moom duñ ko may kenn ndax kooku sóor bi nga xam ne mooy seen jaay ku am du def luy gaañ borom sa rek waaye nag du def luy gaañ borom oto borom client bi moom noonu la mel moom jikkoom moom mm-hmm. ku may dégg yaa ngi koy dégg moom luy gaañ borom saret bi du ko waaye luy gaañ client du ko def mm-hmm. bu doon ne noor la mm-hmm. du ko def ndax man mii ngay wax yor naa fanweeri at ak ñetti saret ma nekk chef de garage waaye nag xam naa li ci saret lépp moom loolu daal mooy yokk gi waaye bu du woon loolu nun du may ñu di ko yokk moom kenn xalaatu di leen ko may waaye ana wax dëgg yàlla nawet bi moom metti na metti boo xam ne ak pem mu seer mi ak ngooñ mu seer mi ak euh, ñetti bos ya lay nekk kër ga añ ak reer ah, dana demee noo xam ne nii boo ko yombalee neen nii moom moom dana yow loolu doo nga la nag waaye bu dul loolu nun leen ci far moom dëgg yàlla moom xam nga boo gisee mi wax ñoom euh, cent cent la ñuy def fi ne bu dee du ñëpp na ndax li ma la wax léegi xam nga yow fukk ngay wax waaye dama gis ñoo xam ne moom même bu mu tawee même bu mu tawee bërki démb. yoon daaru gii nga xam yàlla doogoon fa la dëkk. moom allé 200 lu ñu def moom. moom defuñ 150 200 lañ def. damaa gis benn euh, route sare boo xam ne bi mooy bi bi bi tëbis gi ñëwee xam nga tëbis kilaan day bari. Hmm. ñoom it dañu yokk 200. Hmm. ñoom 100 pour cent lañ yokk man lu sama bët ma may. ba maa ngi ko yéen de xam nga li ngeen def man mosuma gis yokk 100 pour cent yi lan moo tax ngeen di yokk. ñu hmm. daan damaa xam ne booba bu fekkee ne du tëbis da ngay dikk rang lu yàgg. doo ko fees. Mm. bu dee tabaski ne daanaka boo toogee dix minutes eh, cinq minutes wala deux minutes. Mm. sa saree fees nga dem. te léegi nag bu boobaa nag yow nga dikk yokk client yi gën a bari man nag loolu man ba tey daal xam naa loolu laay wax man. Ah. waaw waaw waaw loolu laay wax. wax waaw waaw waaw euh, loolu. Mm. maanaam xañ ne yoonu daaru ñoo koy def. waaw wala veneen. xam nga man dama ne la quatre-vingt-seize garage xaw ma la ñu waxoon ne. moo fi nekk. waaw waaw bu ko yi nga xam ne ñoo abonné ci mairie bi. ci mairie bi waaw amaa nag ñi nga xam ne dañoo dajale rek ne ne garage garage. Hmm. loolu de mas naa ko dégg ci suñuy jëwri ñi nga xam ne nii. Hmm. waroon naa ñu sax ku mel ne Pape Thiam ak Ndiaga Thioub. Hmm. suñu soon bi ñu yor ñoo ko jiit wax dëgg yàlla. yoo loolee yoone ñooñee ngay wax ñii la ñuy def. ñoom de ñoom xanaa ñoo ko de waaye ñun de ñun. am na loo xam ne buñ ko ñu yokk woon it duñ ko nangu. duñ ko nangu amaa nag ñoom nag ku nekk comme li nga ku nekk da ngay toojee. sa bopp janax sa bopp janax waaw ah, wax dëgg yàlla nu dañuy tëye suñu bopp janax nii la mm, mm. ku nekk na ngay def ak sa gaaraat moom daal li am ba de mooy mm. soo demoon ba yàlla dogal nga dalal wa ñooñee xaj na boo leen ci laaj ñoom dañ la ci tontu waaye li ma lay tontu daal mooy sama gaaraat moom ah, ah. ñaar fukki dërëm la fukk lañ ci teg muy fanweer moom la ñuy def bopp woon ñu wax ci nag màggal nag moom trait bi mën kenn xamu ko ndax day am yokk goo xam ne bu dee màggal la moom yaa ma gën a xam màggal fii boo doon màggal Touba gii ñu yok paas yi. Mm-hmm. wala oto yi def lu ëpp. Mm-hmm. fi mu ne am na ci xam ne ci client yi la ndax fii mu ne bu ne boo ne borom oto ne fii sama oto bi feer na. Mm-hmm. léegi wàcc leen wàcc leen. dañuy daal di wax ne déedéet nan dem na nañu màggali. sëñ Touba yor ruu yi loolu xam nga murid yi moom dañoo xër. bu boobaa kooka nag loo ko fayu mu fayu ko. waaye ñun daal li nga xam ne suñu garage moo fay dox. lii moo laa xool moom xam. li guy gi rëy daal man li ma dar comme sa ndax li dar ci guy gi daal laa xam ci guy gi mooy sama gaara daal laa xam ne moom wax dëgg yàlla yàpp ko bu meloon ne rees comme li ma la wax simin du ci am yoon jërëjëf <laughs> loolu de leen 88 628 19 05 88 628 81 02 ku bëgg a ànd ak ñun ci jataay bi ñu ngi dalal Baye Sarr Seye chef de garage sareetu euh, yi kër ñaan jëm foofu 88 628 19 05 88 628 81 08 ku bëgg a ñu jotaay bi man ngaa jaar yoon woowu. Hmm. xam nga ba gisee ma lay wax ci xale bi. Hmm. xale yi. waaw daf ci am xale boo xam ni dafa mos a daw ba dal ci oto nit. Hmm. léegi ñuy dikk di waxtaan pour suñ mu ja mu jégal ko borom seree ba daw. da daal da làbbali fas yu départ. borom oto bi daw ba jot ko. booba sax da ko naroon a fital. fëttal pon bi waaye ndeysaan ginnaaw ñu waxtaan mu yóbbu ko police xam nga lu ko lu ko lu ko euh, borom sare ba wax damaa yaakaar ne rim la rim waaye même bu dee rim alal jàmm dis na ko daq yàq noonu ah xam nga loolu bi melem boo gisee may wax lu bari ci loolu la gis naa it koo xam ni dafa dem marché occas moom ci rang boobu di fa xeex benn borom sare bu ndaw ngay yi sot ko moo jógee fa ñëw gi nga xam ni maanaam boobu suñu buntu kër moom lañ defoon arrêt bi bi ñuy bi ñuy wàññeeku suñu borom dongal ñuy dox di dox ba ci yàgg borom sareet ba xeexoon ak nguur sa dikk fa menn moom waaye waaj da koo jàpp du ko duuru duur ba ñu ko toggal xew est-ce que loolu du histoire ma mais damaa jàpp ne boo yoree xele mu ngeen nekk da ngay arrangé waaye doo sot déedéet ah waaye ñoom dañ ko sot waa ji nag jàpp loola dem na wallaahi am lu mat ñaari weer xuma ñetti weer borom sareet ba xam naa xëy na da ko fàtte mel na moom mu jógee fa ñëw bu ñëwee ne ba dallu war a yabaat jëm marché ngoor si fekk ko fa te ku dóora dóora damañ koy toggal xewar hmm. ah xam nga loolu euh, borom sareet wa borom garage yi war nañ ci waaye nag gis nga li nga wax léegi rek euh, xëy na mbir bu fekkee dañ ko organiser lu bari na dañ hmm. te borom euh, yéen ñi nga xam ne yéen chef de garage yaakaar naa ni dina ci bari loo xam ne moom di ngeen ko dinti hmm. bu ko defee loolu 19 05 88 628 81 02 08 ku bëgg ànd ak ñun mën ngaa jaar jotaay bi. Hmm. comme léegi ni nga waxee ni maanaam euh, euh, kii bari na bari koo xam ne ji est que yéen am ngeen ñoom xalaax maanaam xamante ngeen yi ñii ñëpp borom chef de borom sareet yi est ce que xamante ngeen xalaax goo xam ni bu ngeen demee ba caag gi di ngeen bokk toog ñun ñëpp ngeen kenn ku nekk lay sa gaaraas jafe-jafe nga wax ko ngeen mën ko saafara wala déet. waaw ñun de daanan dajee nag. Hmm. Euh, ñu dajale chef de garage waaye wax dëgg yàlla. Hmm. daje gu ndaje goo xam ne dañ naan nan waxtaan ci garage yi pour ñu lijjanti hmm, hmm, nan dajee ci garage pour ñu lijjanti ko damaa defe ne buñ koy wax moom. ñi jiite garage bi ñun suñu soon ba ñu féete nga xam ne. ka ko jiite muy euh, Ndiaga Thioub. ak Pape Thiam xam naa buñ doon wax lool dañ ko def. <coughs> waaye xam nga dama yaakaar ne. bu ñu wax euh, wolof daan wax naan bu ñu naan jetu leen. Mm. soo cet taxul soo cet moom fekk na banki tànkam. Mm. Mm. man de damaa jubale moo tax. wowuma kenn naan dama dama ma yaakaar na la ca sama gaaral moo ne ca gaaral. waaw xam naa sax yëpp nuyu si. waaw nag man daal la ma wax man damaa yaakaar ne lama ma def moo ko defee. ñu bari buñ ko defee. mën nañoo noppal gendarmerie wala police. am maa na xale yi ngay wax nag moom xale nag loo wax nag moom. dëgg neexul. sama sama xale sama doom du tooñ mm-hmm. samay béy du ruur mm-hmm. wax dëgg yàlla nit ku ko waxit mm-hmm. da ngaa rek moom ndax li ma ne doon ñëpp yemuñ wane moom loo ci wax moom am na ci moom wax dëgg yàlla ndax ñi ñu yorul moom ku yorul moom xam nga ne moom amul loo rus wala looy jox moom mën a yàqu wala dara waaye man de li nga xam ne moo fi sama garage bii di kër sa ñaan am maa danañ yàqal nit waaye ñaare buñ leen yóbbu pëlisu ndi kii guy mbind bee nga xam ne ñoom lan ñoom lan dendal ñu baax lañ wax dëgg yàlla ñu baax ba li dugg mbind macha allah mm. man jox nañ ma cër lool waaye nag buñu demee nag ñoom it lu ñu la jox jox cër it mm. bu sa nit tooñee mm. dañ lay wax ne sa kii bi sa nit ki moo tooñ léegi nag ki tooñ nag bu ne jéggal ma bu ko ko kooka mënee jéggal jéggal ko su ko mënta jéggal fay doo nga ci sës Touba nag moom. loolu lépp comme li ma doon wax nag maslaa moom. daa bari ba fii mu ne nag. noonu nga gis nag da gis koo xam nii it oto bu mag. waaw koo xam nii oto bu mag romb na ko. Hmm. sama jarbaat la. Hmm. su ma neexee tudd turam. waaw ndeysaan. Hmm. ala ngoom la ala ngoom. oto mag romb na ko felesu ko. benn paa daanu ci nga xam ne paa bi dem na ba jannatu door a xiqi. ah borom oto bi taxawul woon bu dul woon ak police. day daal di daw a dem. waaye bañ ko yóbbu ba tey ko yóbbu ko ba lii suuf gi mbind réglé nañ ko moo tax ma la cin li fépp lay baaxee wala fépp la tàng bi foo gis muy baax nga gis mu nga ne fee tàng fa gis yënguwul nga laal fa sa baaraam da ngay lakk moom tooñ gi moom du ma ko miimal kenn gone comme li ma la wax léegi moom wax dëgg yàlla lépp ci ne ndax genn góor nee na ma woon damaa bàyyi dugg seen sareet yi ma ne ko lu tax mu ne ma boo ci bëggee ñu saagal yetti saaga <laughs> ma ne yetti saaga yan mm. ñu yëpp <laughs> nañ ma jéggal ci wax bi paa bi <laughs> ah, bu ñu fayu ne nangam daanal kii paa fayu bi buy wàcc bu nee ma ñu ne ko nangam daanal kii paa bi mu wàcc <laughs> ma ne koy nag ñëpp bu ñu nag mm-hmm. am na ñoo xam ne bilaay wallaay mm-hmm. xalaatu ñoo def noonu mm-hmm. waaye nag li ma la wax rek ñëpp moom mënuñoo bokkuñu sànkara daal boo xañe moom moom pañe yëpp la ne moom man daal xam naa ne moom sama gaarat moom macha allah moom moom daal li leen di te it comme li nga doon wax ci commune bi ñoom fii mu ne ñoom ku jox cër commune bi lañ. Mm. waaye nag daa am ci loo xam ne nii. Mm. dañ cay dox. Mm. ndax léeg-léeg de xam nga commune bi moom àggawuñ ci xamaa nga laaj ma ko sax. Mm, dëgg la dëgg la ma neexee wax ci. na ci waaw lépp ci waxtaan su neexee wax ci mm. ndax euh, am na table yoo xam ne dañu koy loo nga dem ba yàgg ñu daggaatu table maa nga xam nga. Mm. nit moo boo ko yàggalee xam nga fi mu ne mi ngi mel na tey ji addiya. boo def chaque jour nga digg ma addee euh, nangam laa la addee nangam laa la bu dee daara la. <laughs> ah te bu ma demee ne la fu daara ji ne doo ma woon fu ñu sàkkee. <laughs> Ah. ah day dem ba yàgg boo mënee te addiya ma ne la jégal ma da ngay tay waaw ah, dañoo dem ba yàgg léegi nun ñi nga xam ooy seen euh, gaara di leen forcé hmm. table ak lu ne ñu ne ko daggal boori ko da ngeen di forcé hmm. ñu dem ba yàgg nag hmm. table yi nga xam daal gone yi ngay wax ci yar bi ma dem ci mooy ah maire bi jëloon na mesure ji ne jëlee xale yi ci saret euh, euh, yi xool nañ xool ndax am nañ ci yërmande joo xam ne ndax léeg-léeg ab paane man sama doom bu dee duma añ mhm. waaye ñu ne léegi am na loo xam ne bu ñu ko tëralee xañ na mhm. ñu jële xale yi sareet yi mhm. mooy vingt ans yi wala mooy dix-huit ans yi léegi ñu ne dañu def carte conseil carte conseil boobu bi ñu ko defee man sama garage forcé naa ci ñoo xam ne ñii sax waaw mu leen forcé dañ ne ma bàyyi saar ñu ne mun a ñun dañ noo yàgg ndax nangam ku ne def nañ ko ma leen dàgg leen rek nga buur bu la woo boo demul yaa ko tooñ uh-huh. waaw boo ko wuyoo rek uh-huh. sa jaan wàcc na léegi te buuri da lay laaj da lay may dara uh-huh. nga lank ne doo ko jël mu yombalal la ko nga lànk ne doo ko jël mu jaay la ko ci lu seer fort nga jël léegi nag gannaaw nun dañ koy dagg te dañ koy dagg daana ma wax naan ganaar buy buy neen uh, am neen balaa bët a seet teem koo neen ca uh, timis mu bañ ko yàqale nelaw waaw nan nan ko dagg rek te muñ bu ñu continuer bu doxee baax na bu doxul baax na waaw ah, man damay wax ne moom tableau yooyu moom àgg naa ci gis naa ci ne moom soo xam ne maire bi échec na ci man sama garage ñimeetuma leen a wax dara moom ñimeetuma ko ndax forte naa leen ci loo xam ne nii moom moom moom wax dëgg yàlla ba ba ñenn ñi da ko du ñëpp nag waaye nag ñee ko jot a dagg léeg-léeg ñu ne ma yow de bàyyi saar yi ngeen forte woon nanga ma leen muñ leen rek amul njëriñ amul ñoo di bu dëggul dikk <laughs> dëgg la dëgg ah, dëgg la 88 628 19 05 88 628 81 08 ku bëgg a ànd jotaay mën ngaa jaar ci yoon woowu 88 628 19 05 88 628 81 08 fii Bawol Média 88 point 5 fii ci Mbàkke jàkkaarloo marcement ba ci xàll wu jëm Touba. Euh, ku bëgg a jërëjëf kon euh, comme noonu mu ko waxee rek. Hmm. képp koo ne yaa ngi nuy dégg te gawar. Hmm. maa ngi sàkku sa teewaay ci émission bi. Hmm, ak loo ci xalaat jërëjëf jërëjëf euh, Baye Sarr kon ba tey ñu ñëw eh, ci waxtaan bi rek comme ni ma ko waxee woon léegi kon léegi waaye maire bi est-ce que am na loo xam ni da leen ko warlul yéen borom sare nga xam ne tey yàlla dara bu ñu demee ba ci àgg nit ki mu am ci wàllu sare ndax xam nga euh, oto sax day yàqu waxantuma laa nag bakkan comme koo xam ne dem ba ci àgg saw fas daanu est-ce que maire bi am na lu mu leen ci jàppale. maire bi loolu amut. wax dëgg yàlla amut de hmm. amut. xam naa daal yàgg naa ci sareet fanweeri at ak ñaar fanweer ak ñett. Hmm. jamonoy laay wàdd. Hmm. wax dëgg yàlla daan nañu vétusé repas bu bari. Hmm. wax dëgg yàlla. waaye nag booba de ca laay wàdd la mujjee woon bu ma xam. boo xam ne ñëw ni suma gaaraas loo xam ne lu ma mën a wax dara la. amaa nag mu man bu ma neexee ne ci sama gaaraas. comme ni ma lay waxee rek. waaw. xañ na man naa départ ci ñoom ak suur wala dara. waaw waaye daal man daal li ma xam moom loolu moom ku saw fos daanu. Hmm. nun daal nun di gaaraat moom ku saw fos daanu. Hmm. danañ ci. participer lu am solo moom loo xam ne nii boo ca dooloo li nu toll. Hmm. da nga am fas bu baax. képp koo xam ne yàlla suñu borom def na sa nga mbokk moo xam ne. wàcc na liggéey jege la lool. am na lu lay jaalee. képp koo xane yàq nga oto jaamur wala dara. te nga xam ne du réewande nag ak ndogal dong la. dana ne la fayal xaaj bi nu fay xaaj bi waaw képp koo xam ne it jàggadi nga it wax dëgg yàlla lu man danañ ci jàppee te wax dëgg yàlla ba yàlla suñu boroom def ci la gën waaw wax dëgg yàlla nag maire bi moom wax dëgg yàlla nag moom pour sa fas daanu ñu jàppale la ci wala ay ripaas ay ngooñ ay pepp yooyu xam naa ne jotagun ko xam naa kiñ ko jox nag xam nga daa sant ka laat xam nga ne mën na jox man mi sant say pepp moom <laughs> da koy dal di <laughs> wan njuur ndi waaye nag xam nga damay jàpp ni euh, euh, maanaam bu fekkee maire bi lay laaj dara nga dem ba am jafe-jafe war na am na at mu jot quota bu waaye nag xam nga sëriñ dañoo bari neexu ñu jàppale ñëpp de ndax boo dee sa gara sa gara bu dee fay garage si koy defay garage di koy fay yaa ngi te ni nga wax ne maa ni la sëriñ di bare fi ne sëriñ bu euh, garage yi bare garage bu nangami sëriñ ta fa ne 88 628 19 05 88 628 81 08 ku bëgg ànd ak jotaay bi ñuy dalal Baye Sarr Sëy mooy chef de village euh, chef de garage euh, Kër Sëñ Ñaan euh, ba ca Waalo ga ku bëgg ànd ngi ci jotaay bi rek moo xam borom sareet nga wala ku man doon rek koo xam ne daal am nga la naqare ci sareet yi boo ñu wooyee wax ko fii dana la ci jox ak leeral 88 628 19 05 88 628 81 08 maire nag waroon na leen di jàppale dara moom. kon fi ne daal ku dem ba nga xam daal fi ne sa am nga jafe ci loolu kon waa gaaraas ñooy wàññikuwaat. li ngeen cotisé ñu tibb tibb yi jox leen. mais de nu euh, nu ne jàppale gi lenn lenn mooy lu nu gën a ñor. Mhm. mooy. Mhm. bu ñu yërëmee borom sareet yi. moom loolu moom nañ ñu gën a yërëm. Mhm. yërëm boroom sareet di wax mm. dëgg yàlla ndax mm. ku ne xam na ne borom sareet metti na mm. sareet métti na sëñ bi dépense bi seer na ngooñ mi seer na yërëm gi daal bu ñu ko defee moom moom mooy sunu lépp moom fay nag moom kenn bañu ko ndax ci sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla yokki leeram ndeysaan ba mu waxee loolu bare xam nga lu mu nu mujj wax lii leen maire bi sas moom ngeen di ko jéem a bañ xanaa Touba waaye ku génn Mbacke gi fay ko maa leen lii de daw na yaram kenn waru koo bañ nun li ñuy fay ba ñu nu ko xalaatuñ ko bañ. Hmm. Hmm. waaye nag bu ñu doon doolee dimbale. Hmm. maanaam dimbale gi nag moom leen la moom mooy yërëm nu ñaareel mooy. xam nga nag ay yoon. ndax sareet it wax dëgg yàlla boo ko aayee na ko doo jaar ci yoon wii. war nga ko wutal dawee bu muy jaar. mu jaar fa du dëgg. waaw moom it loolu it ci dimbal gi ñuy ñaan dimbal la. ñu jàpp leenu ci. Mm-hmm. ci biir loolu it danaa dem ci li ñuy dëgmal yal nañ si àgg ak jàmm muy màggal. màggal wax dëgg yàlla. Mm-hmm. bëgg nañ dimbal yi ñu dolli ko ci. Mm-hmm. ndax dëgg la sax comme ni wax sareet mu màggal gi xate wax dëgg yàlla mënees soo bàyyi sareet ñuy pëccëxoo ak oto yi nag. dëgg la waaye nag mën nga leen may. ndimbal jox leen système boo xam ne mën nañ cee jaar. benn bi mooy. gis naa soon bi may jaar des fois màggal. danañ fa joxuñ fa monte ñoo xam ne nii. lu ñu tere tere damaa jàpp ne ku yor bagage. war nañ koo mën a may mu jéggi. jéggi dëgg la. Mm. gis naa koo xam ne yor na yenti nag. Mm. bi mu dikkee. Mm. yàlla dogal euh, ki fi euh, semi bi fi bàyyi na ko ne ko ne ko doo jàll. doo jàll bi ma gisee. sarxu ko. ne ko dimbale ko ndax euh, nag yi mu sarte ci kër kilifa la te yàlla ak sëñ Tuubaa wax mu ne ma ah. ah ma ne ko teen ko dimbale dem ba yàgg. benn nag bi ndeysaan dem na bi bëgg a dee. Oh. waaw dem na ba benn nag bi yaakaaruma ne àgg na sax moom. Mm, mm, mm. waaye nag luñ teree teree buñ ñu dimbali woon te yàlla tax. waa maire bi. mu ñu wax nag ñun Abdoulaat Serigne Abdoulaat Ka la ñuy wax. ndeysaan moom moom la ñu yëkkee moom moo moo waral lépp moom. moom la ñu sax di ko yalwaan. moom xañ na sax yëf yi dana dem foo xane ne. xañ na mën na koo jéggi ndax màggal gi waaye nag lu mu ko jéggi jéggi jaar fi moom nag. ndax bërki amoon nañ fi lu mel noonu euh, euh, kii bu ñu doon def raafal bu ñu doon def bu xone waaw sama sare yi damaa toog baax ak ñu woo ma ne hmm. dañ fee dikk waa commune bi di ñu tekki di fay ay cinq mille ay dix mille. Hmm. ma ne ko loolu mu doon. Hmm. man de dégguma ko. waaye ñi nga xam ne ñoonu jiite. ci soon bi ñu féete mën féete ñu ne ah nañ ko laaj bi ñu laajee am na ñoo xam ne. ñu ne maanaam daa jéggi daal mbàkke daal la bàyyi ko. ñëw ba ci Touba daal. ci mbàkke daal la bàyyi ko. Ah, waaye waaye nag loolu bu ko defee. damaa bëggoon bu ñu ko defee ba pare. waaw ñu ne nun nag ñàkk fay la. waaw wala ñàkk këyit la wala dañuy laaj dara gis nga bu ñu taxawoon ci diggante bi. Mm. nekkoo mul carte conseil ñu fayu la. Mm. lu leen neex mën nañ koo fayu. bu ñu taxawoon ci diggante bi. Mm. wëlbatiku waat dal di ne ku arrière woon yi nangami weer fayoo ko. na ko fay lu mu toll nga fay ko. waaye nag koo gis rek jàpp rek. mu joxe dix mille wala mu joxe cinq mille. Mm. amaa sax boo demee loola la yaakaaroon ci baañ. Mm. loolu wax dëgg yàlla moom moom moom metti na nag moom. dëgg danaa ko jooytu nag te ah, moo koy jooy nag. Ah. man Serigne Abdou Lahad Ka rek laa koy jooytoo. moom wax dëgg yàlla mooy yor lépp moom wax dëgg yàlla. est-ce que bu ngeen waxtaanee 88 628 19 05 88 628 81 ku bëgg a ànd ak jotaay bi mën ngaa jaar ci xal woowu. léegi est-ce que bu ngeen bu ngeen defoon délégation dem ci ku mel ni Abdou Lahad Ka ne ko bëggoon bu màggal ñëwee. nga jox ñu laissez-passer pour ñi nga xam dañuy saf bagage di war a jéggi tëli yi ak yu demee noonu ndax bu ngeen ci waxtaan moom pour wutali ay laissez-passer ngeen di ko jox borom saret yooyu lu du gën a noppale ndax laissez-passer moom ñaari foo ko tàlli la ñu bàyyi la nga dem ba tey loolu bu ñu ko defoon mu baax ndax fii mu ne màggal bu jubee mm-hmm. maa ngi nuyu Serigne Abdoulaye euh, Sarr mm-hmm. Abdoulaye Sarr mm-hmm. gis naa sa numéro. Mm-hmm. jërëjëf sa appel gis naa ko. Mm-hmm. ak ah, xam naa ñi bëgg ñëw te mënuñu ñëw. xañ na daaxaat. Mm-hmm. waaye boo wootee woon ci numéro bi muy joxe. kon ngay gën a fës rajo bi ñu gën laa dégg. Ah, laal saar ah, dina baax waaw waaw loolu buñ la ko defal mun moonu gënal. ndax nit ki bu defee la ko war am la ko war. bu deful lu ko war it du am la ko war. gis nga noonu bu ñu demoon jub. xam nga màggal jub yi léegi dañ ñuy wax yéen ñu ci dëkk bi fay yéen. balaa gan ñee ñëw. léegi bu nu fayee bu bu nu fayee. Hmm. léegi bu màggal jotee moom duñ la faale moom wax dëgg duñ la tudd moom wax dëgg. boo fayee nag boo nangoo fay nag wax dëgg yàlla bu màggal jotee yow. Hmm. buñ ne laa taawal nga taxaw tàll soo këyit. Hmm. amuñu soxla ci yow. bu boobaa nag wax dëgg yàlla. boobaa daxaar yi màggal si moom. boobaa loo moom ñoo ñooma moom lu ñu leen fay ñoo ñooma waaye nun moom nun daal bu ñu doon jox laissez-passer it pour yam loola fenn it nag ndax laissez-passer it boo ko jox borom saret da nga koy wax loo ne yemal fenn waaw boo ko jox laissez-passer te ne ko yemal fenn bu jéggee a ah man nga koo man ñu jàpp ko wala ñu def ko leen waaw boo na koo defal fii yamal fii moo moom mën a yem foofu bu ñu ko defoon màggal di wax dëgg yàlla dana sant gën ñoo dimbale gën ñoo jàppale daal wax dëgg yàlla màggal daal moom metti na metti goo xam ne moom bu ñu doon mayit nuy jéggi a jaar rek la noonu bëriwul lu ñuy ji laal ci tël yi mm-hmm. waaye nag bu doon may nuy jéggi jàll it wax dëgg yàlla jéggi jàll way dara moom wax dëgg yàlla buñ na ko doon mayit noonu jël laisser passer bi bu ñu na ko doon jox nga xam ne dañ koy jox borom sareet bu ne bu ko defee ne la yemal fii nga yem fee fay gi it wax dëgg yàlla macha allah moom ku fay it wax dëgg yàlla moom bu boo bukkee duñ la duñ la kii salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi naa nga def kooku su dee ki ñuy soxla Baye Sarr ah, yaa ngi ci biir de sëñ bi wuyu ko. waaw bisimilah. da ngay far. li sant Serigne Baar borom kàddu gi. yàlla amin amin amin ana waa kër gi. ñëpp a ngi lay nuyu. waaw kii waaw. jiite salat bi ko ci xam-xam. waaw. wax nga ko ci yar wax nga ko ci kàddu gi. jërëjëf jërëjëf. waaye nag kilifa gu mel ne Abdou waaw. su ñu waxee waxal la aussi ku nangu bàyyi xel borom service yi la. waaw waaw waaw. dafa tuuti dañoo tax ñaari conseil municipal. waaw. ba Ousmane Sall ak Thiam Sarr. waaw waaw Thiam Sarr. waaw ak Ousmane Sall. ak Ousmane Sarr. ak ñaari topp li nga wax ni politique bi mënta woon foofu daaw. waaw. te jàll saret bi. waaw. loolu amutoon amutoon woon ndigal préfet parce que ñun daaw mu ngi fa woon. waaw waaw waaw. ñu waxal bu ñëw bu nekk. Mm-hmm. foofa jàll nañ la may nga jéggi. Mm-hmm. wala lu mu wax Galop daal te wax daaw ma sama kanam la woon. ñaari bi topp nga ah, ne fan am dëgg bu waaw. ñu fayee ko sa dix mille cinq mille. waaw. ah man mii damaa jeexal sa Mbàkke waaye yëgu guma ko man mii. Hmm. Hmm. waaye yëgu guma ko. Hmm. waaye wax dëgg ñu rafetlu nag man sa Mbàkke Tuubaa yi laa boole yemale. wane na ko. waaw. yéen ñi li ngeen am Tuubaa ci ab Mbàkke ah. ñun suñu ko amoon ci meeru Mbàkke bi muy Galop fu ñu sant yàlla sant sëñ Tuubaa bu baax. wallaay wallaay Abdoulaye Ka kenn du moom de. barke sëñ Baara ak a baax toog na maa moom xam ne Baara xam naa ne waaye man xàmmee ko ndax day. day day lépp sama sëriñ man sëñ Buur Baara moom sëñ Xaadim mooy sama sëriñ. màggal gu jot màggal gi fi mu ne leem ñëw te. waaw ma ne. waaw. man toog na ma Abdoulaye Ka ñaari yoon. waaw. ba ñetti yoon xam naa xam naa yéenam ter. kilifa ku fi kilifa ku déglu njabootam la it. waaw billaay moo tax may la ñun suñu amoon ci mairie Mbacke bii. a fot. waaw billaay wallaay. waaw ku neex a waxal la kii ku neex a waxal la ku nangu dëggu njabootam la. Hmm. barke sëñ Baara billaay wallaay. Hmm. fukki at ak ñaari si au niveau départemental Mbacke benn benn maire moom mooy toog ba xam toog maa moom muy Galaba nii te kenn ku ma doon toog na maa yow. wallaay wallaay wallaay. Hmm. waaw man 88 628. jërëjëf jërëjëf. 628 81 08 ku bëgg a ànd ak 08 ku bëgg a ànd ak jotaay bi mën ngaa jaar ci xàll woowu 88 628 19 05 88 628 81 08 ku bëgg a ànd ak ñun jotaay bi mën ngaa jaar foofu kon dégg nga li mu wax ci Abdou Lahad Ka. waaw waaw loolu loolu loolu moom dëgg la xam nga mm, jiite mbooloo. moo moo moo jafe moo jafe. waaye jiite mbooloo moo jafe waaye bu fekkente ne ji maanaam. Euh, ku ñëpp ku ñëpp gërëm daal moom moom mënut a nekk moom. déedéet ku ñëpp gërëm. ah man a nekk ndax ko koo xam defaloo ko li mu bëgg rek da da lay daal di nu tëdd waaw kon ko kon ku bëgg a ànd ñu ban ngaa euh, dugg ci 88 628 19 05 88 628 81 08 88 628 81 08 ku ko bëggaana ànd jotaay bi. ah mën ngaa jaar foofu kon kooku li mu la gis nga xam nga wax yow la wax da ni sama garage. Mhm. waaye kii nee na moom loolu yëgu ko. Mhm. waaw ci wàllu 5000 boobu. waaw ñu doon fay moom moom yëgu ko. Mhm. waaw am na ñuy fay ñoo a ne nii de moom wax dëgg yàlla buñ duggoon. am na ñu fay ñoo xam ne buñ duggoon moom danañ wax ne fay nañ xañ na xaw ma bari xaw ma néew moom man. man wax nañ ma loolu. waaw ne dañ leen a kar foofu ci yoonu gër si ñaar bi. waaw waxuñu ko defut waxuñu ko. waaye témoin yi wax dëgg yàlla moom dama dañ ma ko wax wax li mu wax ci sëriñ mm. Abdoulaye Ka moom mm. Abdoulaye Ka ku baax la mm, ndeysaan waaw waaye sëriñ Baara ku baax la ndax man xam naa xaw ma waaye xam naa ko ndax day ñëw kër sama sëriñ kër sëriñ Mour Baara moom si Abdou Khadim waaw ndeysaan moom léppam la moom dëgg la dëgg la ndax euh, soxna sëriñ Mour Baara sax day liggéey ci mairie bi ndeysaan ndeysaan euh, dëgg ku baax la Abdoulaye Ka ku baax la ku nu yërëm la dëgg la dëgg la waaw ah, waaye ah, li nga wax daanu daju suuf dëgg la te Ah, daanañu wax naan maanaam xañ na buur ayu dag yaay. dëgg la dëgg la. Ah, te it mun a lijjanti lépp nag. dëgg la dëgg la waaw. Ah, am na loo xam ne du ko mën a lijjanti. dëgg mm, dëgg la mën sant ko gërëm ko doo nga mm, laay def. alhamdulilah waaye nag wax dëgg yàlla nag. Mm. moom wax dëgg yàlla loolu daal moom. wax nañu ko yoo xam ne man sama man dama lay wax lu tu lu ma lay wax dama naan la man sama son waaw dëgg la ndax xamu beneen soon. waaw waaw dëgg la dëgg la dama ne la ku nekk ak na muy tëjee man daal li fii rek man. ci laay ne ci wax. waaw ah, li ma fa gis. moom laay wax moom wax dëgg yàlla bu ñu feebee asa bi ñu fe ki yabal it. muy fay it ku dal lay doon. alhamdulilah ku yaru lay doon. Mm-hmm. ndax du forte. Mm-hmm. ci nenn ni. Mm-hmm. waaw moom moom moom dana waxtaane yow ba nga faa du xuloo du def dara nag. dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla macha allah nag. waaw 88 628 19 05 ku bëgg a ànd jotaay bi 88 628 81 08 ku bëgg a ànd jotaay mën ngaa jaar ci xàll woowu képp ku bëgg ñu invité la it mën ngaa jël sama numéro. 473 96 31 mooy tigo bi 76 473 96 31 wala nga jël orange bi 78 183 19 91 mooy sam orange ku bëgg ñu invité la fii it bu ñu jokkoo incha allahu dina am bis ñu invité la fii ci penc mi 88 628 19 05 sëñ Baye Sarr kon est-ce que yéen di ngeen def léeg-léeg hmm. ngeen organisé wu dem euh, siyaare ji xalifa général des mourides wala déet jërëjëf jërëjëf. loolu de wax dëgg yàlla boo ma waxee. moom sawar naa ci. waaw mën naa ne la boo ma ci bibbee bibbee nga ku am crédit. waaw ndax wax dëgg yàlla man sama garage. àllarba ju jot ku xëy da nga joxe fukki dërëm. àllarba yooyu ñuy dajale. mu amee at. jëkk nañ ci siyaare ji sëñ Cheikh Aliou Mbacke. jàmbaar ji ci ndox mi. siyaare ji nañ ko ci. li ci des it damaa fàtte indi kii di waaye tubaa ci kanam it am na ci yoo xam ne participer woon nañ ci waaw xalifa général de Mouride nag moom benn lañ ko ci siyaare jee woon muy sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke waaw moom siyaare ji won nañ ko ci ci euh, fële Mbàkke Kajoor waaye nag yàlla dogal na moom euh, sëñ muntaa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér moom wax dëgg yàlla siyaare guñ ko ci mm. waaye nag wax dëgg yàlla moom mm. ñu ngi góorgóorlu ci euh, lu man ci ndox mi mm. ñu ngi ko ciy jéem Touba ci kanam daal lu man noo ko ciy jéem hmm. ndax wax dëgg yàlla macha allah ndax hmm. daanaka du fay du dara ndax bu ñu xoomee li ñu yàq ci ndox li ñu def hmm. maanaam fayuñu jëfuñu dara waaw noo ngi ciy jàpp ci loolu de siyaare ji ku tedd ki nag moom wax dëgg yàlla moom defaguñ ko ci waaye tubaa ci kanam moom wax dëgg yàlla jot nañ caa dem bu dul ñaari yoon it bu du ñetti yoon it mën na ñaar siyaare ji woon nañ ci sëñ Aliou Mbacke it Cheikh Aliou Mbacke mm-hmm. ci bi mu yoree mbirum ndox ma woy ni waaw loolu dee la moom moom rahmatullah 88 628 19 05 88 628 81 08 ku bëgg ànd jotaay bi ñu ngi dalal Baye Sarr Sëy moo jiite gaaraasu Mbacke mm, Bari jëm waalo ga mm-hmm. ku bëgg ànd ak man nga xam ne ku ma bëgg woo it man ngaa euh, pour ñu dalal la mën ngaa jaar ci 76 473 87 31 wala 78 183 19 91. kon léegi euh, bay saar ba tey ma laaj li dëgg dëgg dëgg seen jafe jafe-jafe yi moom fan la jëm ci ci ci seen jafe-jafe nga xam ne maanaam moo leen gën a naqari. jafe-jafe yaa comme ni ma la waxoon. Hmm. xam nga fii mu ne jafe-jafe yi daal moom. Hmm. xaj na lu ci ëpp moom mooy. Hmm. budul ne dañuy kar di tekkee wala dara. waaw waaw. Ah, loolu daal laay wax. màggal gi jafe-jafe yi xañ ne met ne waaye loolu it mm-hmm. màggal gee ko waral mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla it pëccaxoo bi sare du ko mën ak oto yi mm-hmm. waaye dama ne la nangoo nan loola waaye bu ñu doon dim gën a dimbale koo xam ne aayati le tëli bi ñu bàyyi la nga jaar ci yoonu suufee ah. wala boog bu ñu doolee dimbale man fa ma féete laa wax sëñ bi wax léegi daa mel dafa ne moom doon nañ ko may mu jéggi xaw ma waaye ñun fa ñu féete woon moom wax dëgg yàlla moom da dana doo moom waaw dana métti jéegi loolu nag laa yalwaan ni leen bu nit mënoon a jàppee yooyu jafe-jafe da am nan ko fa gi moom moom amul jafe-jafe fayu gi mu amul jafe-jafe ab lëgëtu waar la danoo war ñu di ko def sëñ bi bëccëg fukki dërëm weeri mille cinq cent waaw dafa yomb waaw wax dëgg yàlla mm. mairie bu ñu mën a jàpp ci loolu it mm. wax dëgg yàlla moom moom loolu dara moom moom fay gi moom wax dëgg yàlla moom du dara moom xam nga Baye Sarr jéggum daa mënut a ñàkk ndax li nga wax di nga gis koo xam ni dafa ñëw pour mu am oto boobu demee day am problème nga xam day wàcc garage wala ancien garage wala yu noonu bu demee mu jël saret du am oto bu ko yóbbu du taxi ndax taxi boo wax dina la facturer loo xam ne yow ndakaaru nga jóge fayu ko woon man su demee wax ni man taximan ni Touba dañ maa jaaxal ci wet ndax mm-hmm. fu bari jël naa fa taxi mm-hmm. waaye mbooleem région yi yaakaar naa moo ci gën seer taxi mm-hmm. ndax fi ne da ngay dikk fii wàcc garage dama koy wax léegi bi nga wàccee garage fay cent franc dem yoon daaru waaye fin ba wàccoon tey hmm. oto bi juróomi nit lay jël téeméeri dërëm hmm. nga wàcc jëm yoon daar bëgg a jël tas ñu fa facturé mille cinq cent wala wala wala nga boo fayee sept cent cinquante sax doo dem hmm. xam nga loolu métti na bu ko defee nag justement màggal nga gis koo xam dafay indi ay walis saaga lu ne lu man ñett ba ñe ñu ñu jël sareet léegi yow yaa ngi war a dem yoon daaru jël sareet nga ñëw baag station ñun la doo jàll léegi boobaa sareet ba day taxaw di lewaayoo ka lu ne mu dugg ca te fekk ñi mu yor xëy na sax ci suba lañ jóge woon Ndakaaru ci suba léegi nag ci àll bi euh, mu sonn lool añuñu daanaka naanuñu am na ci soo xam ñoo xam sax du dikk léegi mu dikk nag bëgg yàgg fi mu war a jéggee mu bëgg faa yàgg diggante mu am Ndakaaru loola it wax dëgg yàlla xam nga dafa metti ah, dafa metti moo tax li ma la wax léegi wut ay kayit yoo xam ne daal boo ñëwatee donte nag sareet yi bari na waaye loolu dafa maire yi moo waroon def déclaration ni képp ku yor sareet na nga ñëw wutal laissez-passer boo ko defee ne nag fii nga yem waaye doo jàll fee. bu ko defee euh, gendarme yi boo dikkee wanee sa laissez-passer ñu jël sa laisse euh, ñu bàyyi la nga dem. waaye ndax fi ne ni même ñiy liggéey ci dëkk bi léeg-léeg da ngay gis mars màggal ñëw ñu yokk paas duñu àgg fan daan àgg boo ñëwee ba tëli bi rek ñu la fi nga yem. te fekk yow yokk nga sa paas. nga xam da ngay mujj wàcc dox am ñoo xam ne ñëwaat ci ginnaaw tëli bi di jël sa rek ñu jëm noonu nga xam ne ñaari fois lañ koy def. xam nga yooyu wax dëgg yàlla war ngeen eh, yéen borom sareet yëpp wala boog yi ci ëpp ngeen ga eh, daje waxtaan dem waxtaan ci ak waa mairie bu ko defee ñu wut leen solution. waaw xam nga nun am nañ ay kilifa. waaw ndax ku mel ne Ousmane Sall. waaw ak eh, kii hmm. ah, Ousmane Sall ak. Eh, ba eh, damay fàtte tur bi. sànq ah. rek maa ko wax Thiam Sarr Thiam Sarr. waaw Thiam ah, ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiite sareet yi Touba. Hmm. ñoom lu mel noonu ñoom ñoo ñoo ko mën a dox. Hmm. son bi nu féete yi nag ku ñuy wax Ndiaga Diouf ak Pape Thiam moom moo nu jiite ci son boobu. waaw hmm. ah, beneen son bi nag côté Baye Sank Sarr la <coughs> la moom. waaw ñoom ñoo jiite loolu moom. waaye loolu nga wax man dama koo dund dama ne la. man dama daa taxaw sama kër soriwul woon kii bi dama daa taxaw. ci peg tëli bi wala la sim waaw bagage ku dem jënd bagage ci biir euh, marché bi mm-hmm. di borom magasin mm-hmm. wëlbati war ko jaay dikk ñu ci tëli bi ñu doo jéggi léegi nooy def ah, teela ne la doo jéggi wala la sim am lii mooy wax day am mm-hmm. teela ne doo jéggi léegi nag ana bagage bi noo koy def ah, am na ñu ñoo xam ne bu ñu la doo xam nga nooy defa wàccee bagage bi roñaat ko jëlaat sareet ci biti man gis naa ko de. ah day dëgg la roñaat bagage bi loolu ko gën a metti kenn sëf aw nag kër mm. boo xoolee corniche bi ñu wër lépp këri kilifa la mm-hmm. dépare daral mm-hmm. sëf yetti nag dawal ba egsi mm-hmm. nag ku ne xam na day jël air des fois nga egsi tëli euh, bi wax dëgg yàlla ki nga fekk may la ay quelques secondes nga jàll wax dëgg yàlla loolu moom dara wàññu ko suñuy mënoon a jàppale jàpp na ci loolu laa ne la moom la ñuy woyaan maire bi te di ko jaar ji suñu sëriñ Abdoulaat Ka waaw loolu laa la wax moom bu ñu ci mën a dimbale dimbaleenu ci waaw leneen li mooy it buñ nu karee ne dañuy def renversement wala dara nañ wax li tax ñu du ko def waaw bu dee ko mu ku fayul la am nañ droit ji def ko waaye nag toog ba yàgg rek sam waaye ah, ñu kar la ne la nangam la wax dëgg yàlla dana métti ci koo xam ne ñii nag moom moom day xoslu rek nañ nu doole jàppale jàppale borom sareet yi fay gi nag moom borom sareet suñu koo bañ wala bu ko bañi da sonn dong maa ngi jàppale ku sedd ko waxoon rek sëñ Saliou Mbacke ku ko bañ tubaaboo dee da nga ko def te kooku wax léegi wax na dëgg waa Touba nag am na ci nag borom sa réew dañoo dañoo joti ngañ bay faalu waaw wallaay bu ñu génnoon Touba gii yor sareet beneen dëkk danañ am problème ndax fay gii sax boo tey man fee ma dëkkoon ci njaambur bu wax cuuruur jege ci kooki boo Louga googu boo masaan dem jaayi boobu boo jubee dëkk bi fay juuti wala dara mm-hmm. ah, te fii am na sare yoo xam ne xañ na du ñu fay mm-hmm. fay gii nag leen am na ci man mm. soxoruma siisuma mu mm. doon maase dara du ko gën waaye fay git ñu jógee rek mm. ki bindu ci gaaraas bi di yëpp ci gaaraas bi rek di fay keneen koo xam ne bi nu wajub gaaraas deesu la fayu di wax dëgg yàlla nag du neex ci kiy fay ci sareet bi nag bu ñu sañoon nag ki ci gaaraas bi boo ko fayee weer wi dee boo leen fayee bo bu ñu paree yaa xam nooy def ba ñu waaye wax dëgg booy fayu ñi ci gaaraas bi rek fay woo ñeneen ñi du neex te wax dëgg yàlla boo xoon ci ñuy fay ñi oto yi hmm. ki ci garage bi uh, ak keneen yam weñeet bi mu wala entourage bi da nga koy dagg da nga koy fay waaye wax dëgg yàlla boo am na loo xam ne boo soxoruñ duñu ko def fay ki hmm. boo xañ na bool moom da koy fay doo xam bul xalaat fu mu jëm hmm, munoo xalaat fu mu jëm waaye nag fay moom bu maase woon daal dana gën ci nit ñi moom wax dëgg yàlla uh, moom moom loola it bu ko defoon it nun bañunu fay gi moom fay fay gi moom yoon la moom fay far fort fay la moom ku ko bañ boo génnee def ko tubaa na wax dëgg yàlla macha allah yërmande ji. Mm-hmm. comme li ma wax ci Abdoulaye Ka rek dafa bari ba nga xam ne nii moom wax dëgg yàlla ñoom mm-hmm. am na yërmande joo xam ne am nañ sare doxe noo xam ne nii nag. Mm-hmm. Touba doo nga ko ñemee doxee nag. waaw Touba rek ndax wax dëgg yàlla. Touba rek ngay gis moom nag ah, xale yi jëfe noo xam ne du ko wax sax. Ah, wax dëgg yàlla Touba rek nga koy sañ nag. Mm, lool nag bu bu bu ma ko manoon te dimbale nu ci ñoom borom sare ku may dégg. Mm. nanu soppi. ndax ku am lu amul lu kenn amul mm. nga war a mel nu kenn melut nit ku jógee ku nekk tubaa gi ñu di ko roy mm. wax dëgg yàlla wërte yam kenn xam nga kii naan waa Mbàkke bu ñu jotoon ci ni tubaa dem ah. wax dëgg yàlla nee nañ ko siiw <laughs> kon nun ñi roy nag wax dëgg yàlla war nañoo xam ne ñuy def mm. am yar ami teggin am sutura ah, nga xam ne ci nga mën a amee teranga ndax ku tedd ka sëñ si mu daal ne ko yëruwul doo yor dara ku teggiwul dara doo te ku tegginwul doo tekki dara kon nag euh, kon nun war nu war noo xam nu ñuy def xale yi nañ wëlbatikoo wala keneen koo xam ne yaa ngi yor sax ak ku doon mag ndax fi mu ne nag dama ne xale yi rek waaye mag ñi am na ci mag ñoo xam ne ah ñoo mën a yem rek waaw moom daal wax dëgg yàlla war nañu soppi melokaan yi bañ a mel ne ni ñoom daal comme li ma yalwaan di ko yalwaan rek nañu doolee démb lu jéggal te xam ne mbaam day sew na waaye ci gii la ramatu it dañ ne sew na waaye ci giiru picc la dëgg la de giir la de 88 628 19 05 ku bëgg ànd jotaay bi 88 628 81 08 ku bëgg ànd ak jotaay bi ñu ngi dal tey Baye Sarr Sey moo doon chef de garage kër si ñaan Diop ba ca Waalo ga kon ku bëgg ànd ak ñun 88 628 19 05 88 628 81 08 ku bëgg ñu dalal fii ci penc mi it Euh, wooyee naa la jox bis bu ma la daal muy 76 473 96 31 473 96 31 mooy sama tigo bu dee orange bi ci 78 183 19 91 ku ma woo incha allah buñ jokkoo naa la mën a dal fii kon Baye Sarr. waaw moom daal xam naa ne. Euh, jafe-jafe sare yi daal. moom bari na trop trop trop trop ndax foo làmb rek mel ni foofa daa gën a. xaw a te xam nga fi ne lenn am na am na koo xam ne xëy na daa jóge eh, ca àll ba toxu si tuubaa mm. bi mu ñëwee ak mag jàpp na ko. xëy na amul woon métier. léegi nag tey mun a yorub sareet tam di dawal. léegi mooy li nga wax léegi rek bu ko dee faw ala kulli doom ji lay jox sare te doom jëf jamono ja mu nekk ci sareet bi daa waroon a jàng. bu ko dee bu màggee. Eh, dana sikk waajuram ci wet ndax ñàkk jàng ndax ku jàngut moom bu màggee boo màggee da nga sikkaati kon gone yi ci boppam war nañoo gën a wax ak ñoom même buñ jàngutit nañu am amub yar mm-hmm. nañu amul yar waaw ndax fi ne sa moroomam bàyyi te loolu moom ñëpp ko jàmbat mm-hmm. ñiy dugg sëriñ ñëpp jàmbat xale yi seen melokaan mm-hmm. ndax di ñu wax ne xale boo xam ne ji waroo yor fukki dërëm wala ñaar fukki dërëm bu fekkee deux mille nga sa poos wala naa nga boo amul teyit leen gën a doy waar mooy seen melokaan yi da nga gis xale boo xam ne da nga naan kii xanaa jógewut ci kër fob bopp bi def ko noo xam ne ji wala mu def ko yoo xam ne moom daal moom daal doy na waar loolu daal moom xam naa ne moom moom war ngeen ci gën a gën a jugaat day am loo xam ne moom day dina jaral sax ku ko melokaan bañ a bañ a bokk sa saret bañ a bokk sa sa kii bi am na noo xam ne boo ko melee suñu garage duñ la yaate suñu garage <laughs> hmm. duñ la yaate waaye gis nga ko euh, dabalaa bopp wala mu xetti ko wala mu def ko neneen waaw kookee nga gis fii mu dof wala mu wala mu mel neen ni lii problème fii moom boo ko dóoroon yi wala nga ma def dem bu dem ci buur doo wax ñaareel bi mooy hmm. boo ko waxee hmm. laa ila bu la tontoo xam ma ne fërër naaw ak dugg suuf looy gënal man <laughs> nag loo ci def dara xawal seetaan léegi gone yi nun daal moo li xam ma dem li ma la wax du may jóg gone yi hmm. man aw ma droit ci aaya leen sareet aw ma droit ci yar leen waaw daal waaye ku ci eh, ku koo xam ne yër woo moom mbedd ngi di ki yar la mbedd nag moom lu ne la ndax mën ngaa tooñ kilifa goo xam ne yëlsal mm, boo yëlbu la dara du ko jar ci yow man ngaa tooñ buuréet mm. buur moom buur moom moom moom moom lu ci dare daal waaw wax dëgg yàlla buur a ko mën a faj waaye ñun munu koo fañ na daal li nu man mooy mm. daneen góorgóorlu ci ñoom deneen wax ci ñoom it am na melokaan yoo xam ne boo ko melee it wax dëgg yàlla moom nun dun la dugal suñ biir waaye li may wax rek man daal jëyuma sama bopp nawuma sama bopp mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla moom mm-hmm. sama gaara moom maa allah moom mm-hmm. ndax da ci am noo xam ne bu luwaa boo xam ne boo ko manee def ko boo ko mënul ñu def la soo euh, weñ cim soo euh, seppi xam nga weñ mën naa dugg ci euh, kaasub ataaya nga seppi ko sànni waaw bu duggoon ci baraada bu mag wala café ah. doo ko tuur da seppi sànni naan sa baraada <laughs> 88 628 81 08 ku bëgg ànd ak jotaay mën ngaa jaar foofu 88 628 19 05 ñu ànd ak euh, Baye Sarr muy chef de garage euh, Kër Siniane jàpp waalo ga foofu lay daw euh, kon Baye ba tey ñu kon ne ci waxtaan wi rek. léegi yéen diggante boobu may diggante. Euh, diggante waaw xam naa mu mel ñu ngi bëgg a yëkkati jataay bi Baye Sarr. Mm. waaye 88 628 19 05 88 628 88 ku bëgg ànd ak ku ma bëgg ma daal la nag man ngaa jaar 77 473 87 31 wala 78 183 19 91 mu mel ni Baye Sarr. Mm. waxtu waa ngi tàggoo. Mm. léegi xam naa dañ lay jox kàddu gi nga tàggoo nuyu ñi nga war a nuyu. Euh, bu ko defee xëy na du ñàkk ñu seqaat beneen jataay. waaw kon baax bisimilah. waaw baax na jërëjëf. la hmm. ma waajoo woon daa ma waajoo ko ne. Hmm. ba ma dalee def ne woon sa kàddu gu mujj ma ne ko neet loo mu xanaa sama kàddu gu mujj ak yow. <laughs> waaw dëgg la doon sama kàddu mujj. dëgg la waaw xanaa di sant rek. Hmm. jëwriñ ji nga xam ne nii moo jiite tey place bii. ci rajo bii. sëñ Modou Diop Thiat sëñ Modou Diop sëñ Modou Thiat men. xam naa ko. <laughs> bokkoon fii di euh, di ci di ci kii. diisoo diisoo diisoo RFM bokkoon nañ ci di nekk di baatu wolof waaw da gisoon waa baatu wolof maa moom ak ay suy bu jóob ak sëñ Abdou Rissa Ndiaye ak ñooñu baatu wolof ak waa kër sëñ Moussa Ka ñooñu waaw sant naa ko gërëm mosunoo gisee na wax dëgg yàlla alhamdulilah moo nekk dugg naa ci waaw sëñ sant naa la gërëm naa la ñaanal naa la sàkku ci sant nag mbooleem ku ñuy déglu mm. di jéggulu mboolem koo xam ne dégg ngeen hmm. lépp loo xam ne nii lu tiis la rek na ngeen xam ne. Hmm. xañ na xërëg ak matadi moo ma ci dal ak ku ma ci wax loo xam ne nii. Hmm. xañ na la ma wax. daa junoo di ak matadi doom aadama rek la. waaye du lenn loo xam ne jublu naa ko ci. képp lépp lu ci rafet nag. maa ngi koy sant sama sëriñ sëriñ Modou Baara ibnu sëriñ Abdou Khadim ibnu sëriñ Baara ibnu Khadimul Rasul di sant sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàggati. yàlla na nu ko yàlla seeram talul. def ko kiimaan ba mu dund dundub sëñ sumay bu ga wala sëñ Mbàkke maaram ba yéenem àgg te nu ànd koog moom maa ngi sant nag bépp gawar bépp nag ndax bu ma limee du ma jum waaye du ma matal waaw kon nañ ko jàppee na maanaam buum goo xam ne takk na sayu mat mm. xam nga laalul mat yëpp waaw mootee mat yi ci digg ba wadd wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërëjëf euh, Baye Sarr tey am nañ kontaante bu baax ndax wax dëgg yàlla benn ñëwee seen garage yow sax ñu ngi doog gisee waaye eh, ka ma fekk moo ma jox sa numéro ma waxtaan yow nga ne ma loolu mën naa nii. Cheikh Ndiaye kon waa suñu Cheikh Ndiaye kon léegi wax dëgg yàlla bi nga bàyyi si itte ak ni guddee nga ñëw ànd ak ñu njataay bi waaye liñ jub lépp mooy luy defar rek ndax ñu rajo bi moom li moom émission pinc mi la tudd penc bi ne borom sareet yaa ngi ci borom taxi yaa ngi ci borom jàngalekati alxuraan yaa ngi muy ndax penc mi daa yaatu lépp a ngi ci boo demee garab gu ne ngay fekk. ni baag kadd baag bu ne xay gaag lu ne hmm. loolu mooy penc mi loolu ci kon nag léegi suñu xol sedd na hmm. ñu ngi lay sant di la gërëm ci woyof gi nga man a am ba ñëw ànd ak ñun bi hmm. lépp loo xam ne ji daal bëgg nañ mu dox incha allah wala ku bëgg ñu invité la léegi man nga euh, jokkoo man bu soobee yàlla dinaa la euh, invité fii nga wax say naqar ak sojo ak lépp loo xam ne day jëmali fi nga nekk kanam ci seen kàddu gi seen mbokk oustaz Abdoulaye Guèye wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu publicité Saraol Média FM. ci ndigalul Serigne Mountakha